Ndongo Sarr secretaire général adjoint bu CUSEMS ñu ngi lay nuyu. Ah, di la dalal euh, tey jii monsieur Sarr ñuy wax ci taux euh, bu baccalauréat bi donte officiel agul mais li ñu jot a gis ci euh, lii di résultat mën nañoo ne dal na xel tey jii est-ce que jàppoon ngeen yéen ñi acteurs yi ne résultat yi waroon nañ ko mën a am. waaw xam nga am na ay difficultés yoo xam ni ragaloon nañ ko. Hmm. et ñun d'ailleurs bindoon nañu bataaxal yónnee ko ministre de l'éducation nationale mm-hmm. euh, ni que nag contexte bi nga xam ne si lañu nekk lii mën na nekk problème de sorte que il faut ñu taxaw ci sinon rek mën nañu indil donc jafe résultat yi dañ koy euh, rafetlu d'abord di wax ni rek euh, pour koo xam ni da nga nekk ci secteur bi ba pare di saytu mbir yu demee noonu da ngay gis ni kat 2017 dañu amoon 31,7 pour cent. Mm-hmm. bi ñu demee deux mille dix huit taux boobu yokk ñu dem trente cinq virgule neuf pour cent ñu dem en deux mille dix neuf taux bi dem trente cinq virgule cinq pour cent loolu day wane rek ñoo ngi woon ci benn tendance boo xam ni taux yi même su dee baawoon na mi ngi doon yokku donc ndànk la. Mm-hmm. ren nag dafa am loo xam ne lii moom moo xew mooy li ñëpp xam muy euh, feebar bi nga xam ni mbas bi nga xam ne dafa dal suñu kaw. Mm-hmm. ba tax ñu tëjoon école yi benn jamono biñ koy tijjiwaat itam. Euh, xale yi nga xam ne dañu waroon def examen ñoom kese ñoom ñoo dem reprendre loolu nag dafa am jeexital si njàngin bi parce que classe yëpp dañ ko jël ñu tas ko da doon gis classe boo xam ne soixante élèves dañ ñu tas ko def ko ñetti classe mu nekk donc ay classe yu ndaw yoo xam ne yi euh, encadrement xale yi dafa doon gën a yomb mm-hmm. ñu dolli ci également contexte bi tax ñu xool euh, ay aspect ay poñ yu bare yoo xam ni ay poñ yoo xam ni ci programme bi euh, dañ ko doon jàngale ñu ñu wàññiku ndax amatuñu woon euh, jot bu doy boo xam ni dina mën a permettre ñu def loolu. Mm-hmm. damay fàttali ni Sénégal lii caractériser programme yi mooy que dañu am ay programme yoo xam ni dafa li tubaab di wax démentiel dafa bari trop xale yi dañ leen di jàngal loo xam ne lii amul mm-hmm. amul njariñ par rapport ak série yi nga xam ne yii moom la ñu tàmm donc je crois que euh, beneen aspect bi itam moom mooy que ñëpp xam nañu ñun ñii ñëpp sax waxuma xale yi mais ñun ñii suñu nekkee ci ay difficulté difficulté day tax finalement yow nga gën a xalaat gën a xool man ngay def ba génn ci situation te période bi nga xamee ni dañu arrêté euh, njàngale bi période boobu dañu arrêté woon njàngale bi ci école yi mais li tubaab di wax la continuité pédagogique ñoo ngi ko woon donc du assurer ci ay fànn yu bare benn fànn bi moo doon am na njàngale moo xam ñoo ngi ko doon def ci ci ci télévision bi am na njàngale moo xam ne ñoo ngi ko doon def ci internet ay cours yoo xam dafa disponible mais profit dañu engagé woon euh, organiser seen ay élèves yore ay groupe whatsapp xam nga di photocopier ay cours di leen jox ainsi de donc loolu yëpp suñ ko boolee yaakaar naa ni man na expliquer résultat yi nga xam ni nii tey jii moom lañ gis dañu koy rafet may fàttali ñun. Mhm. at yi weesu sax nga xam ni résultat yi dafa xawoon dafa xawoon a baax ñun yàgg nañu wax ni booy xool dafa am ay yenn établissement yoo xam ni ay lycée d'excellence la ñuy wax wala ñu ni comment dirais-je encore Prytanée militaire mhm. wala ñu ni maison d'éducation Mariama baax mais booy xool finalement condition yi nga xam ni moom la état bi mësa réunir ci école yooyu mhm. ba tax école yooyu di def ay résultat ren booy xool si ñaari ñaari weer yi mujj ci at mi mais conditions yooyu la ñu réunir ci yeneen école yi ci école yi ci Sénégal yëpp. kon daal bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni mbas mi dafa am lu mu réglé tey it noonu la war a demee. mais noonu la war a demee moo tax ma ni lii dañ ci war a jàngat. man yàgg naa wax ni gis nga conditions yi nga xam ni moom la ñuy mettre élèves yi dem ci école yooyu ma ma tudd sànq condition yooyu suñu ko defee ci école yëpp parce que ay école la yoo xam ni daanaka ku fay dugg dañuy saytu sa ay mbir ba mu leer ni kat yow mii am nga niveau mhm. bis boo fa duggee lépp luy jumtukaay dañu koy dajale ba mu mat ñu jox la ko bis boo fa duggee da ngay nekk ci ay classes yoo xam ni classes yi su euh, baree effectif ba bari du dépasser donc vingt élèves mais ñu jàngal mais looloo tax ñuy def résultat yi ñuy donc et ñun dañu considérer que ni élèves yooyu nga xam dañu nekk ay élèves yu excellents mhm. naan mérité nañu effectivement ñu encadrer leen pour ñu mën a développer tout le potentiel mais ñun dañu gëm ni élèves yi nga xam ni en fait ñoom xëy na peut-être amuñu euh, même disposition yooyu que élèves yi jàll ci école yooyu man pour man ñooñu ñoo gën a soxla jàngalekat yu baax ñooñu ñoo gën a soxla euh, comment condition euh, d'étude yu baax ñu mën a am ce qu'on appelle l'égalité des chances donc ak ñeneen mais su dee dañuy jël ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a brillant ñu jox leen toutes les conditions ñi nga xam ne nag xëy na peut être ñoom ñoo nekk ci ay difficultés ay affaires yu kenn xam ne ñooñu ñu ñu mettre leen dans des conditions yoo xam ne c'est des conditions qui ne qui ne leur permettent pas donc de se surpasser à l'évidence mënuñu am ay résultats ay baax ci ci école yooyu mm-hmm. donc lii nga xam ne dafa xew ci ci mbas mi nii mm-hmm. moi je crois que dafa am lu mu ñu war a jàngal mu am ay conséquence yoo xam ni dañ ko ci war a tirer su dee bëgg nañu école sénégalaise bi euh, daal di inscrire définitivement ci ay résultats yoo xam ni ay résultats yu baax. Mhm. tey jii jàngat wi dafa wute parce que am na ñu naan euh, lii résultat yi sax maguy la euh, loxo politique ci biir yow nan nga déggee wax jooju. waaw xam nga loolu man dama koy ñaawul. waaw ba pare di jàpp ni wax ju mel noonu. Euh, dafay wane ne rek ñi koy wax xamuñu mbir yi mu ñuy dem. Hmm. waaw ndax nag euh, épreuve yi ñuy joxe ci examen yi jàngalekat yi ñoo koy tànn. Hmm. dañuy xool ci système bi ay jàngalekat yoo xam ne kat yàgg nañ ci euh, am nañu benn expérience bu ñu capitaliser ñu leen ah yéen kat yéenay jàngale yéenay jàngal xale yi nga xam ne ñoom ñooy def examen yi hmm. léegi proposer leen ay sujet ñu def ay proposition de suivi su ñu defee proposition yooyu ba pare dafa am ay commission commission yooyu dafa am si jàngalekat yooyu ma lay wax noonu ñoo xam ne dañ siy bokk am ay inspecteurs généraux yu si bokk am ay inspecteurs de spécialité ay formateurs euh, école normale donc yu si bokk et su ñu demee ba sa cappaandaw la nag foofu la euh, la ñuy génnee jàngalekat yi nga xam ni inspecteurs généraux de de de l' mën na am ay quelques changement yi ñu indi te loolu ëmb bi moom mooy que ñu def de sorte que euh, sujet bi nga xam dañuy joxe mhm. kenn bañ xam ni loolu la muy indi ay fraude wala ay triche mhm. donc loolu rek loolu nag su amee man gisuma autorité yi nan la ñuy duggee ci lool ba mën a changer épreuve yi parce que dañu bëgg résultat yi jëm dans ce sens wala yow sa bopp yaa ngi may wax sànq ni ma résultat yi ren yi soo moytuwul dina poser problème parce que ñiy jàll ni ñu baree état bi dina am problème pour orienter hmm. man dama yaakaar ni loolu xanaa état bi si boppam moom si boppam amul benn intérêt donc di def loolu donc dafa am ay wax yoo xam ni yaakaar naa ni ku koy wax da nga waral xalaataat donc bu baax a baax donc bala ngay wax donc lu demee en tout loolu suñu jàngat hmm. donc ci mbir mi yaakaar nañ ni am na ay raisons yu objectives yoo xam moom moo moom tax que résultats yi ñu am ren bi donc ñu baax euh, justement euh, wax nga ko léegi ci say wax état tey ëllëgu ndaw yooyu nga xam ne ku ci nekk am na euh, bagam pour ñu orienter la dans le supérieur tey jii ndax amu leen njàkkare ci ëllëgu ndaw yooyu non man awma awma si njàkkare d'autant plus que loolu responsabilité état bi mm-hmm. état bi itam moom moo jël responsabilité ni xale boo xam ne am na bac fii ci Sénégal dina la orienté. waaye gis nañ ne. Euh, ci léegi ci jëf ji amul parce que ba tey am na ñi nga xam ne am nañ daaw bac mais orienté guñ leen. waaw loolu gis naa ko gis naa xale yi sax ñuy dem ba ministère ba di di manifester. Mhm. te loolu ñun dañ jàpp ni du yoon. parce que nag ñun dañu gëm ni gor ca wax ji état bi su engagé woon nii dafay euh, orienté xale boo xam ne am na bac fii ci Sénégal loolu daf ko war a donc respecté. maintenant euh, il est vrai que am nañu ay universités yoo xam ni aujourd'hui la fa nekk ci ay étudiants bare na bare boo xam ni mën nañu ni sax dafa jéggi mhm. dayo mais am nañu yaakaar ci ni am na ay structures yu bees yu juddu yoo xam ni ñooñu mën nañu monter en puissance et pour man xale yu bare ñu dem ci structures yooyu ñuy tuddee ay ISEB ak yooyu sax moom moo gën ndax foofu dañ leen fay jàngal directement donc métier alors que ku ci dem université am da ngay jàng ba am yenn diplôme ñu di soog a def formation pour dem jàngi donc métier a moins que xëy na peut-être nga dem ci euh, yenn yenn yenn euh, université yoo xam ni commencé nañu def ay mutation yu leen permettre donc ñu jàngale directement donc ay ay métier mais loolu daal ñun dañu jàpp ni responsabilité état bi la te suñu taxawaay moom mooy euh, di ko ka fàttali mm-hmm. pour que élèves yëpp képp koo xam ne am nga ci bag donc ñu mais maintenant dañuy ñaax itam euh, candidat yi nga xam ne dañu réussir au baccalauréat mhm. que ñoom tam ñu farlu si déposer seen dossier et suñu déposer dossier yi ba pare ba inscrire si campus ñu bañ a fàtte valider mhm. seen inscription parce que ñu bare dañuy dem ba pare te duñu valider seen inscription et loolu moom mooy tax au finish en fait ñu leen di laisser donc en rade Euh, naam am na si ñu bare ñoo xam ne xëy na peut-être ñu donc informatique. Mhm. am nañ ñoo xam ne ñi xëy na peut-être fi ñu nekk si zone yooyu ñu am ay problème internet institut et cetera mais je crois que ak seen ay euh, administration école yi mhm. war nañu mën a organiser wu de sorte que te damay ñaax également administration école yi nga xam ne ñoom ñoo jàngal xale yi ba ñu am bañ. vraiment ñu accompagner leen dans ce sens mhm. ñun ñi chaque année su bag bi weesoo fii nii suñu siège u syndicat soo fi ñëw dangay gis dañu am ay permanent yoo xam ni ay xale ñoo leen di woo ci intérieur du Sénégal bi gépp leen di inscrire fii à travers nos plateformes parce que yi ñoom fi ñu nekk mënuñu am loolu maintenant nag yooyu dafa nekk yoo xam ni man pour man euh, autorités yi également war nañ ci xalaat su may wax autorité yi waxuma autorité yi au sommet mais dama ni gox bu nekk administration école bi inspection ya fa nekk nga xam ni man damay jàpp ni ba euh, bachelier yi ñu am loolu seen ay bachelier lañu ñoom war nañu mën a réunir condition parents d'élèves yi tam am nañu ay jéego yu ñu war a dox. Mm-hmm. donc ci wàll woowu damay woo acteurs yooyu yépp kenn ku si nekk sa taxawaay nga taxaw ko ba mu mat sëkk pour que ñu bañ a am loolu nga xam ni moom ngay déplorer mooy ay xale yoo xam ni dañ leen bàyyi en rade ñu nekk fi ñu manifester bi parce que ñu ñun xale yi am bac yëpp la réew mi soxla. Mhm. Euh, monsieur Sarr ñu jeexaleeg organisation baccalauréat 2020 euh, atum ren nan nga ko jàngatee. waaw xam nga ren moom dañu nekkoon ci situation exceptionnelle. Mhm. mbir yi mënul euh, doxee. mbir yi mënul doxee ni mu ni mu daan dox. Mhm. waaw dina am ay ay ay manquement yoo xam ne ñëpp dañuy xam ni kat ni mbir yi tëdd moom moo ko war. maintenant ñun suñu suñu suñu su préoccupation bi am moom moo doon que acteurs yëpp ñu assurer seen sécurité donc sanitaire par le respect des mesures barrières mhm. euh, loolu xëy na lépp matul mais en tout cas am na ñu fànn yu bari yoo xam ne yi en tout cas donc jëm nañ ko ci mhm. donc respect maintenant si épreuve yi am na quelque difficultés yoo xam ni signalé nañ ko Euh, par exemple en espagnol dañuy joxe loo xam ni dañ ko dindi woon ci programme bi ba pare ñu ñëw joxe ko. Euh, anglais euh, concertation yi prof yi demoon ci concertation yi waxtaan ak ñoom nee nañu am na ay question yu bare yoo xam ni réponse yi ñu ci mënoon joxe dafa bare woon donc de sorte que réponse question bi dafa ambigu woon xale bi du xam exactement lu muy répondre français bi itam consigne bi ñu joxe woon dafa amoon ay difficulté donc yooyu yëpp nag ñun pointé nañ ko. et daañ si waxtaan ak euh, autorité office du baccalauréat pour que euh, problème yi nga xam ni moom la ñu am ren bu déwénee ay problème yu mel noonu ñu bañ ko ñu bañ ko am. ñu bañ ko am en attendant ñi nga xam ne ñooy ndaw yi ñoom ndax du am dara lu ñu yàqule ci euh, dysfonctionnement yi. no yaakaar yaakaaruma nga parce que nag xam nga concertation yi looloo tax ñu koy taxawal. Mm-hmm. dañuy xool par exemple discipline bu nekk. prof yi nga xam ni ñoo bokk benn discipline di fa corriger dañ leen di wax ni leen bala ñuy laal benn copie nañu dajaloo ñu xool épreuve yi ñu saytu ko ba xam kat lan moo ciy problème wala lu ci dul problème hmm. léegi su ko defee ñoom suñu gisee dafa am loo xam ne lii problème la boo xam ni mën indil candidat yi jafe-jafe ñoom seen bopp dañuy waxtaan xool nan la ñuy def ba loolu xale yi duñ si loru donc su ce rapport problème yooyu su amee euh, jàngalekat yi nga xam ne ñooy corriger ñoom ñoo ci ñoo koy jëkk gis et habituellement dañuy jël disposition yi pour éviter que xale yi bañ ci loolu. Mm-hmm. Ndongo Sarr euh, may fàttali ne yaay euh, secrétaire général adjoint bu CUSEMS ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Elisa maa ngi lay fay di la di la jëf jaajëfal